السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنو في التلفزيون؟ أنا مباح زيارة لندي أم بكتساس نهدف لندي فيديو.

xet bal bi noonu dugg noonu c'est c'est c'est nice rien à dire j'ai bien aimé le match de Pathis franchement waaw waaw waaw waaw c'est un jeu bu xamante ne moom xaw ma ndax dañ ko war a jugé sur ce match rek pour mën ko yóbbu coupe du monde wala dañu war a xaaraat saison bi li muy lis dèjà li muy wane waat euh, Rayo Vallecano mais d'après li ma gisoon tamp ñu contre Barcelone ak li ma gis nii daf ma doy quoi franchement euh, c'est un mélange de de c'est un mélange de de de de Nampalys Mendy xam nga donc euh, xam et de d'un autre joueur quoi dans l'équipe nationale je veux dire par là que simplicité bi xamante ne saa yi moom ñu koy andi n'importe quel milieu qui a doucement et il est bon dans les transports. Techniquement parlant, c'est propre. De cette technique que franchement, rien à dire. Xam nga j'ai bien aimé aussi le match de football qui s'est battu, reyante na dem na ba jeex quoi. Ñuy wax dem ba jeex xaw mu fàttali un peu gasama temps ci nekk offensivement parlant lay xaw am problème un peu même si am na am action yu xamante ne dafa ñëw deux personnes trois personnes vitesse leen noonu. Xam nga daa koy boo match tous les ballons des dem nag agressivité andi na que reyante na xam nga loolu moo ko mën a yóbbu noonu. Fu nekk daw na fa dajeeku na xam lu nekk def na ko quoi xam. surtout combinaison ak a Mané offensive bi mooy mooy problème bi li ñu doon xaar côté boobu rek mooy offensive mu xëy li gars yi ndikoo li dana dem continuer jouer mais jouer na match am quoi Abdou ba jël mu si attardé wu Gomis soigne si il faut mu ay passe am quoi xam nga passe jouer nii xam nga gardien de but léegi football moderne lay jox bari foog nga passe passe yu normal xam nga loolu noonu dinaa si ñëwaat quoi euh, Moustapha Nam il a fait son match c'est pas son poste xam nga parfois gars yi nag parfois daaw mooy le meilleur milieu terrain mais le fait ñu teg benn partie si suñu yéene ça veut dire que foofu dafa bouché ça veut dire que yow xalaatuñu la foofu mu dafa ci c'est compliqué pour toi benn sabal bi fi nekk wala bon ça veut jouer donc la question c'est malheureusement quoi xam nga sur Massam football na comme les bien bien aimé le premier mi-temps de de de de Nam quoi franchement il a joué

impact physique même si parfois day daanu de trop parfois da nga naan mais attends saa yi tànk la si am da gën a dëgër mais impact physique bi ñu andi tey tey tey xam nga ne football américain yi football football bi surtout américain di mu yéeg ci kaw combiner jouer jël ay risques xam nga voilà ba pare ay wol de dernier bi penalty bi moo ko andi donte Pape Pape Matar Sarr moo récupéré mais dafa ñëw ay une touche de mu dem. néew fii di téye di kur xam nga di kur dina day am lu muy calcul mu daa am foofu noonu tak du joxe lu nekk ci la j'ai bien aimé le n'a pas peur quoi c'est les boy yoo ne moo tax football <laughs> après naa def bi boo xoolee jël na pii ñoom Rasoul Ndiaye boy yi Korok U23 ak boy yi bi xel dal na quoi xaw ma nax yéen de mais relève bi ci milieu bi non xel dal na moo gisee Pape Matar Sarr ni mu ñu joué kërëb kërëb et Pape Matar pour man je trouve que moy jour bi xamantene tok na ban club ne feñu ci matcham mais ñom Bamba Dieng Gomis euh Nampalys mais fraîcheur physique dafa manqué da ngay gis ne waaw saa say les gars souffle quoi da ngay daa tu gis ni ram nga dafa manqué automatisme yi xam nga daa am lu manqué quoi fraîcheur bi da ngay gis ni ñii saa le fait que joué ñu amna impact ci ñom xam nga donc euh, Pape Matar Sarr loolu feeñ si le fait que joué naat Tottenham feeñu si moom il a fait son match la fin son match donte bi am na quelques fois yu xaw a téye ci moom la bokk xale la dina gën a apprendre en attaque on a Sadio Mané Boulaye Dia Krépin Krépin Diatta j'aime bien son match mais parfois te laa gën a bëgg fii dama doon wax ne ça c'est le nouveau Sadio mais parfois day téye ba je toro mon frère Moustapha Name du latéral mais parfois day di xaar ko jox mu xel saa yi téyewaat correct même si la fin son match parfois aussi tamit c'est des bu ñuy critiquer dañuy critiquer lu xamante ne mën na avancer le joueur bi quoi parfois xam nga ailier yi léegi saa yi kenn teewatul bal xam nga moom mënoo ko sax loolu daan doon ñu ko boo xoolee Kovac loolu moom noonu problème ak Pamba ak kii Krépin joxal bal bi nga nekk ci leneen mon frère jouer c'est simple football am na fu muy tëdd donc def na match sama du mu ne match bi daa bon wala lii mais xam nga c'est simple mon frère xam nga ñu jàll ci leneen on avance mu bay nekk débat kenn du si attardé wu mais bon voilà quoi Boulaga, il a fait son match. Dans les appels, Jim combiné avec euh, Sadio Mané, franchement, bien, même si en deuxième mi-temps, il est complètement, je tout Donc, euh, concernant Sadio Mané, voilà. Après, il y a une vidéo. Sadio Mané. Tour de altruisme, il a fait un bon match hein, dans les dribbles, le penalty, la sérénité, il a eu l'occasion, c'était moins danger numéro un. Franchement, il a fait son match. mais li Nagelsmann mën doon wax noonu après naa ñoo def débat de propos Sadio Mané Liverpool ak Sadio Mané temps yi naa si defal am na lu mu ci xalaat dinaa ko andi mais il a fait son match bon homme de xam nga donc il a fait il de sérénité moo ko andil boppam moo ko dóor am na yeneen passe yu mu passe ay lu tuuti mooy def ay deux centimètres xam nga mu mu gars yi yeneen bii am donc Sadio Mané mën na wax de pour remplaçant yi je trouve que Bamba Dieng ak Nampalys man manque de rythme dinaa si ñëw manque de rythme li ma gis. Euh, Demba Seck j'ai bien aimé techniquement parlant c'est propre xam euh ñeneen ñi tardivement lañ dugg que ça soit Formose wala euh, jack Jacobs tardivement lañ dugg xam nga ñu amna na ñu naan mais je pense que deuxième temps xam am match yi dina dina jouer donc c'est ça hein c'est ça c'est ça peut-être on va voir prochain match nan lay démé xam nga euh, mais 2-0 techniquement parlant bal bi daw ñoo possession bi j'ai passé un bon moment c'est ce qui Sénégal même si en deuxième mi-temps carrément voilà quoi nous devons joué l'Allemagne Bon, on 3 4 continue mon frère 2 5-0 mais bravo à l'équipe bravo à Lucie et son staff fallait le faire gagner 2-0 on attend Quand euh, contre Iran dans deux jours le 27 donc euh, faut que match bu bi Iran il 1-0 me donc mbokk yi li ma ne ko vidéo bi dama leen ko ñamal à chaud la mais après naa leen defal analyse bi au complet euh, la pourquoi yenn joueurs yi ma développé si quoi maa leen di jaajëfal di leen wax ba beneen sur Senfootball TV. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet yi Senfootball TV nuyu naa leen bu baax.